prezențelari părâni prezenți, cu rără pe acolo bară să negori să zără nu vrei să vă victorii gori prezențelari, al pălă la râpul gori să prezențelari la râpul, mi am mod de mori sărăciu la căcea de a 1902 să ne palba ona ia glai de la. Mi a clar să vă săldu guvernul general afrox dal TAF. Le personal să cordiar 1964 abdu car de abla 2012 mă că am de 2012 mă am făcut. Nu care nu am că ore pe că prezențelari pe că la ordonă fan le ore. Salam alaikum.

standard mani mangi lay deg bu baax standard sa ngi lay deg da bëgg xam lu waral sa woote ko kat man mi noppam yi na ci mani papalum eh. eh, mani pablum mani mangi lay deg bu baax dama ni lan mo waral sa wote bi ci waxtu wi nu tollu ni ni. ah may waaw ah lay bu baax yaa ngi may dégg bu baax. waaw lan moo waral sa woote. waaw waaw waaw day xanaa di gërëm di gërëm njiitu réew mi. waaw ci lan. di gërëm président ci couvre-feu bi. waaw. <laughs> barke sëñ Bamba bi ma yaakaar boo yi kat bët a bal bal. ah. waaye bi mu jëlee euh, gars jox leen ay fitt ñii mu jox leen ay gomam ñii mu ay liif yoo xam ne fa mu dal day dagg ca biir. parce que démb de boo yi génn ñu mën leen ñamutali. yow loolu wax yow. <laughs> barke Sëriñ Bamba nee ko. waaw. neel président. waaw. neel président Papa Ndour nee na. waaw. allo. maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. waaw waaw waaw ko Papa Ndour nee na. waaw. mi ngi lay jaajëfal di sant di la gërëm. wane nga ni pire président nga. ah waaw kay eh, ah Papa Loum. ndax feebar bu la wéy ci réew dañ koo war a moytu. waaw kon baax na mani. waaw mani. léegi dee ko nag na ko yokk nag couvre-feu bi na na def na ko def dix heures jàpp onze heures. ah bu ko defee gars yi liggéey guddi gi mën ah, a ñuy jaay nga la. ah Papa Loum nag soxor nga Ba ministre des sports. waaw Makhtar Ba jox jox na ni Makhtar Ba ministre des sports. jox na la enveloppe. doomu Fatick jën. ah kon jaa kon ma ne wuyu ma wuyu ma. yàlla na jël coupe d'Afrique. ma ne ah Papa Loum pa Papa Loum jël coupe karaté jël coupe kung fu jël coupe basket yàlla na tege ne coupe yëpp Matar ba ñaata la ma jox. waaw kay dama ñaata la joxe. ma lee enveloppe bi la jox. waaw waaw waaw. ab ci ne lettre invitation. gagnant bi nag lim ma moo ci ne. Matar dañ ko yaa. waaye ba ba ko yaa léegi votre correspondant peut être c'est pour le moment. bu laa appelé le ba